waaye noo ngi séentu sëriñ Bas Basiiru Mbàkke moom sëriñ Seex Asu Faati Faal moom sëriñ Basiiru jóge léegi ci sang ba Seex mun Muntaxa jaare woon Gosaas di ñëw léegi la ma wax ne euh, moom it pënoom dafa kii ci yoon waaye mi ngi ñëw yaakaar nañ ne balaa jataay bi jeex dina jóg kon li ñuy fas yéene jot li ci liggéey bi ñu fàttaliwaat ko leenu fi dajale mooy sant sëriñ Saaliwu cant googu nag yàlla dogal mbooloo mi nga xamante ne mooy Miftahou Sahada bi nu dajee ñu ne reñ jii dañoo bëgg indi loo xamante ne bii njàngale lay doon ci ndaw ñi mag ñi nga xamante ne yàlla dogal na nu sàmm dëkk bi ci diine waaye sàmm dëkk bi ci ngor nu xam leen ñu tudd leen rendre leen ci hommage ginnaaw bi nga xamante ne yàlla dogal na seen jëmm yi dëdd loolee nag ñu tànn ci ay mag yoo xamante ne bii commission bi nga xamante ne bi mooy commission culturelle Miftahoul Sahada ak commission wàllu xam scientifique lañ koy waxam de ñoo dajee boole seeni xalaat indi ko ci penc mi ñu waxtaane ko ñëpp rafetlu ko ñu tànn ci ñenn indi leen ñu yóbbaale ñi ci des bu ñu waxoon kenn ci ñooñu rek ku mel ni imaam Ibrahima Anne di waajuru imaamu ratib ñëpp xam ne liggéey na lu mat ci dëkk bi jéema woy sangub jigéen ñi jararoy kuy dox ci suuf si mat na la ndey umul xadim rasulilaay xel baa ngi naan su lay jugal xol baa ngi naan su lay wayal yaay avocat bi la yaal kay doomi maam jaara jeexal ko ci dund soxna dundal li nga xamante ne bi mooy liggéeyu mag ñi rawatina njabootu kër Cheikh Seydi Hadj Malick kon nag Baye Tidiane Sarr bokk na ci mag ñi ñu tànn ñu ñëw ci kenn it ci mag ñooñu Baye Mbaye Niang doonoon wëllëreem doonoon xaritam foo ma sa gis Baye Tidiane di ko gis ci wet gi kon nag loolu bokk na ci mag ñi nga xamante ne moom it jàpp na leen seen taxawaay ci dëkk bi mate na ko waaye bu ñu nee bàyyi alaaji sëriñ kan bàyyi alaaji sëriñ kan bari na ndaw loo xamante ne mi yëngu ci mécceem karo yaakaar naa tey ku ko xam ci këram nga ko xamee doonoon mag ñi nga xamante ne moom it ci magi taalibe yi dëkk bi la kooku yaakaar naa bu ñu nee dañ koy fàttaliku ci liggéey sëriñ Touba. loolu yaakaar na ne lu war a mën a nekk la waaye Baye si Cissé jàmm gën ñu taxaw ci tuuti Baye Moustapha bare na kuy ñëw ci jataay bii buñ masaan di ubbi waxtaan yi Baye Moustapha Cissé jàmm gën yaakaar na ñëpp miin nañ ko ci barab bii fu ne ànd nañu fa ak moom muy dox lu mel nii ngir tey ñu egsi fii Baye Moustapha sunu xel dem ci moom nu fàttali ko waaye ànd ko dëkk bi ak jàmm gën gépp ñu defal leen ko Baye alin Badara Thiaw kenn ku ne moom xam na ko ni meloon ci kër Sërif Assane Fall doon magum taalibe womat nu jàngal na lu bare bare bare ci lii nuy dox moom it mu bokk ci mag ni lu tànn ngir fàttaliku ko waaye ak kenn ci magi murid yi Baye Jëmbu Géey Baye Jëmbu Géey yaakaar naa ne ku miin bayaal bii dimanche bu jotee ci ngoon daan nga fekk donte men na moom moo fay nekk mu taal rajoom teg ca bande bay Ablaye Niang bokk na ci mag ñi nga xamante ne moom it jàngal nañu ngir xirtal nu ci lii nga xamante ne ñu ngi ciy dox tey ñu ñëw nag ci ñenn ñi nga xamante ne bi ay membre suñu bopp lañ yoo xamante ni daara ji lañ bokkoon di ay jigéen buñ ci tuddoon kenn rek ñu yóbbaale ñu des suñu yaay Ndey Njaay Cubb yaay Ndey Njaay Cubb bañ nañ ko ba dañ daan wax sax ne moom gaynde ak poroxaan ndax liggéey boo xamante ne yàlla dogal na mu sosoo woon ko ci daara ji te yëmu ci xiirtal ci njaboot ak boppam di jël alalam di ci def di jël ñaxam di ci def bagaasam du ko feet fekkee yaay dañ yaay ci bu tey ku ñëw ci waañ yoo xam ne wéetal nañu suñu yaay Mabo Diallo yaa Mabo jàlloo moom it doonoon jàmbaar lool bëgg liggéey bi waaye kenn suñu maam Maga Jeng yaa Maga Jeng ñëpp xam nañu ko donte lim daan teew ci mbooloo mi bariwul waaye bu ñu tuddee lim ne dañ koy dañ koy def ci daara ji bokk na ci ñi njëkk yónnee su ma mosaan gis dama daan wax ne ma sëñ Mara na xam ne Lamp Fall FM benn émission du ma raw na nga ma nuyu lu jëw ni loolu Abdourahmane bii maa ngi koy wax keroog bi ñuy def plateau spécial bi yaa màggat bokkoon ci jëmm yi nga xamante ne ñu taxaw daara ji lañ mag ñi nag alaaji pàpp lañu tànnoon ngir fàttaliku leen ci bis bi ñaanal leen yàlla yeesa yërmande ci ñoom waaye ñaanal leen yàlla euh, lépp li nga xamante ne liggéey nañ ko ngir diine mu sëmbatal ci dëkk bi doon njariñ ci ndaw ñi boo defee noo ngi sàkku ñëpp dolli ñu ñaan kenn ku ci nekk indi na fi délégation bu takku dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ndax waxtu wi xat na lool waaye daal noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax mbooleem ñi ñu lim kenn ku ci nekk sa njaboot du nga ko yëgee nee nga seen bis bii dara dafa mel ni man ngeen ko defal loolu nag du sunub liggéey ndax xalaat yi ñooy maase ci wuti lu baax tey xalaat yi ñooy maase jëm ci li nga xamante ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala jàngale na ko muy benn ak jullit yi loolu la ñu ciy def suñu kémtulaay kàttan kon looloo waral tànne yi noo ngi gërëm ñëpp di balu ñëpp àq ko defee li ñuy jeexale suñu kàddu rek ndax ñun wax naa leen présentation rek laay def tey sant ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci bis bi ñëpp bàyyiwuñu kenn at commençant par monsieur le maire ku miin baas bii miin nga ko ci tey nag yàlla moo dogal jataayam bii doon kilifa dëkk bi kon monsieur le maire ñoo ngi lay ziar bu baax nga feggoog kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci kaw ku mel ni sëriñ Daado Puy imaam bu Touba Toul ànd ak njabootu sëriñ Ibrahima Puy yépp tàmbalee ko ci rakkam sëriñ Jiili Puy noo ngi koy siyaar bu baax sëriñ Jiili yaakaar naa bu ñu amee te ren ji siyaar bu neex ci suñu digganteeg Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla ak jëmmam ji la dem na ba sax bi mu ko waxee bis bi sëriñ Muntaxa ne ko temaa yebal ndaw ca cant ga ginnaaw bi bi moo ko waxee yàlla dogal mayit ci sama sobte rek ma ne ko ah ginnaaw sëriñ Abdou Karim yàlla dogal na njaboot ak Maam Mor Jaara gépp dañuy te kilifa moom mënta am ñaari jataay mbàkke nañu ñaanal rek waaye ñaan gi tubaarkàlla yéeg nañ ko bu baax imaamu raati bu dëkk bi imaam abu an teewe fi ñaari jataay doon imaamu raati bu dëkk bi waaye wajuram ñu koy fàttaliku ci bis bi kon imaam ñoo ngi lay ziar bu baax sunu xarit suñu mag Amadou Yoro Sy doon kenn moom ci dëkk bi noo ngi koy ziar bu baax sa teewaay waaye ki nga xamante ne mooy Cheikh Alioune Bey Cheikh Alioune Bey maire Diamaguène Sicap Mbao yebal na fi kenn Serigne Khadim seen mu teewal ko fi ànd ak ak bu takku Serigne Jibi kase di kenn ci ñun moom di sunu xarit di suñu wëllëre teew na ci mbooloo mi xam naa ne comme waxtu wi dafa gudd kenn ku nekk bindaloon na ma délégation bi ñu àndal waaye ngir ñu jaar ci ñëpp dina xaw a jafe délégation Pa saar Sarr soxna wax nañ ma ne soxna Awa Sarr moo ko jiite ànd ak njaboot gi ñëpp ñëpp lañ ma bindal waaye bu ñu bëggee lim ñëpp temps bi ñuy jël dafay bari te daanaka deux heures jot na bu ko defee man damay wàcce sama kàddu ci ñaari mbir bi ci jiitu mooy sëñ Daawda teewaay boo xamante ne bi sëriñ Abdou Karim waroon na ko fee teew mate nga ko sëkk li ma ci dolli rek mooy nga santal ñu jëmm jiit Abdou Aziz Guèye ndax nit dina dox loo xamante ne bii ci wàllam mënu ko ku ko ci dimbale doxal ko ko dimbale nga ko tey lu benn yoon tàngam lu sunu lenn nit nag bu la defalee loo xamante ne bii mënaloo ko sa bopp bu fekkee ne dañoo teew ca kanam fañ ko war a waxee te waxoo ko amaana sa ngor des na kon nag sëñ abdu ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay xam nañ li nga yéene dëkk bi xam nañ sa jëf ci dëkk bi bu la neexoon tuxu kenn dutu la gis bu la neexoon di toog juróomi weer doo fi jaar waaye dimanche yu jot di nga ñëw ko ànd ak sa njaboot seet si sa waajur loolu cër magu ko jërëjëf Guèye yàlla yàlla yàggal taxawaay yi xalifa Babacar Sarr da fee teew ci ñaari mbir teewaay bi ci njëkk mooy teewal fi daayira bi nga xamante ne yàlla dogal na ko muy njabootug Cheikh Seydi Hadj Malick Sy nga jiite ko di sunu rakk di sunu xarit waaye nag jiit délégation bi nga xamante ne tey njaboot ak bàyyi imaam Ahmed Sarr ñoo ko jiite sa mag Modou Sarr moo ko jiite kon noo ngi lay ziar bu baax ñi fi teew ñëpp incha allah xam naa dinañ jéem a dab dabaatal ñenn ñi ci Pape Ciss ndax lim ma bindal bari na lool te it fii ma taxaw di lim daanaka may coono dab na ba nga xamante ne bii <laughs> damay tanduy wax rek ndax daanaka li ma bind sax xooluma ko waaye Pape Ciss moom it noo ngi sant damaa wax ne baat bi moo xaw a kii waaye dama ne ko woon tey man lu ma wax ndax yàlla xam na ne ci bëccëg ba léegi wax yombu waaye eh, tey dana ma man mënumaa wax ma ne ko nag dinaa góor góorlu ci wax ci turu mutaabina fillah maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal nu dëkk bii ànd bi nu ànd ngir liggéeyal yàlla ànd gi nu ànd ngir bennoo yàlla bu ci seytaan yoon yàlla na ñu yàlla dimbale ba li ñu bëgg a liggéeyal yàlla borom bi subhaanahu wa taala njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick nekk fee bu gàmmu jotee ñu ànd ak ñun ci taxawaay bi bu màggal jotee ñu ànd ak ñun kenn jéemul xëccu kenn ku ne xam ne li ñu bëgg mooy yàlla la ñuy wuti li ñu bëgg képp koo xamante ne bëgg nga Serigne Touba aw ci ndigalam aw ci li yàlla digle waaye kon kooku aw na ci li Cheikh Seydi Hadji Malick digle kon nag ñun bu nu kenn wax loo xamante ne bi luy féewale la ku nu ko wax ñun jéppi nanu la yàlla na nu ci juboo yàlla nu yàlla dimbale nu bennoo ba li suñu yéene yàlla mottali ko fi may daaneele sama kàddu ci ñun ndaw ñi laa koy jëmee ndax dëkk bi dafa yëngu te it war nañ ci am suñu part de responsabilité mooy yàqante der am na ci dëkk bi nit ñi kenn ku ne di wax lu sa yoon newut suba ak ngoon lii nga xamante ne tàbbi ñu te suñu biir di réseaux sociaux yi kenn ku ne xam ne kenn amatut ak jot ñii di saagante ñii di xastante te loolu wuute naa ak li nga xamante ne moom lañ Serigne Touba jàngaloon waaye loolu wuute na ak li ñu Cheikh Seydi jàngaloon nanu góor góor lu tënku ci njub liggéey te jaamu yàlla te xamante ne fii ci àdduna li fi mën a jëriñ nit mooy liggéey allaaxire lañ fay yaakaar mooy jaamu yàlla góor góor lu tënk ci njub te moytu yàqante der gi moytu xasante gi ci réew mi te xam ne loolu di suñu cër donte ay politiciens lañ ci ni ma ko mën a waxee politique ci luy defar dëkk bi politique ci luy defar réew mi ku ko bëgg it waroo fexe bay féewale ay nit waroo wax lenn lu yàqante bu yàlla dogalee kenn ku ne ay tànneef am kenn ku ne ka nga bëgg nga tànn ko ci dal jàmm ne ñooyu kenn yàlla nañu yàlla dimbaleel boppam noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ñëpp àq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mara kàddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla ah, kàddu yi soññee la ndax doomu aadama moom li tax yàlla wàcce ko ci àdduna mooy jaamu yàlla jaam bu jaamul yàlla jaam bu sa am ba gërëm moo lay ramu yowmal xiyam kon dañuy gën di jaamu yàlla te xam ne jaamu yàlla rek mooy maye àjjana yowmal xiyam nañu bëggante te soppante te xam ne allah kullu alin kullu nafsin saay xatil mawti kullu man alayha fan kon loolu bu nekkee suñu kanam nañ koy bàyyi xel saa su ne ku yàq nit rek sa bopp nga yàq ndax yàlla moo ne doomu aadama ci boppam maa ko bind nañ yàlla nangu sunu ñaan di siyaare ñëpp nag di jéggalu ñëpp baax a baax a baax a baax a baax dañuy gën a wéyal liggéey bi rek